di am mbégte kontaan di baax dellusi waat ci suñu naafila yi weeru koor yi nga xam ne ñu ngi koy baaxoo ànd ak yéen tey ñëw ci suñu guddi fukkeel gi ak juróom-ñett guddi fukkeel ak juróom-ñett sëriñ Chouin bi mi ngi wax ci téere bi di Xuratul Ayni ne képp koo xam ne julli na ci mu julli na ci mu julli ci fukki rakka fukki rakka la ci julli rakka bu ci nekk Fatiha benn yoon sabbi isma rabbikal a'la muy suratul a'la qul yaa ayyuhal kaafiruun ak qul huwallahu ahad lu ci nekk benn yoon fukki rakka rakka bu ci nekk Fatiha benn yoon suratul a'la suratul kaafiruun suratul ixlaas lu ci nekk ben yoon mu wax ci ngeenel la képp koo xam def na ko dara mel ne koo xamee ne moom na adduna si yépp ak li ci biiram ba noppi jël lépp dund la waat ko ci yoon yàlla te xarafu ci nekk des na ko ca tabaxal ji dëkk bu rëy ci aljana dëkk bu rëy ci aljana mel na ne itam ku jaamu yàlla jurum ñaar fuk at yoo xamee ne daa yendoo woor oh, di fanaanee julli di taxaw di naafila mel na it ku jàng alquran jëpp téeméer yoon aj ko aj ak ju nangu téeméer yoon humra téeméer yoon te des na ko ca bindal tuyaaba joo xam ne yàlla rek mooy xam na mu toll